rot na ci suba paasan muy euh, CEDEAO tey jii mu mel nii dafa am ñett ñoo xamante ne dañ leen ne abal abal nañ leen seen bërëb ba mais mais mais c'est une ah ci naka moi je xam nga euh, cohérence pour cohérence mhm. euh, on ne pas dénoncer lépp loo xam ne dund nañ ko ak tubaab yi ba agsi fii tey di am xel ñaar ci loolu mhm. te ndeysaan gis nga mbiru CEDEAO boobu mhm. ak ak mbiru Sénégal. ah mbiru CEDEAO boobu. Mhm. ak ak sunu élection yi. mbiru CEDEAO boobu ak ak li daal Ousmane Sonko ci Sénégal. Mhm. dal képp koo xam ne acteur politique nga ci biir Sénégal bëgg nguur gi. <coughs> dal ñi nga xam ne ñooy ay acteur politique di yëngatu pour doon président wala am fi ndombal tànk ci Sénégal. Mhm. képp koo xam ne jóg nga. laajal aujourd'hui le nombre de candidats qu'on a les vingt candidats. waaw RFI ngi woo ñëpp. Mhm. rajo France Internationale mu ngi woo kenn ka si nekk xam nga lu tax. luñ ci jublu. parce que rajo France Internationale ak France 24. Mhm. ay médias la ñu yoo xam ne dañuy dox ci stratégie ak géostratégie ak géopolitique. Mhm. maanaam ce sont des médias qui appartiennent et dépendent exclusivement du ministère des affaires étrangères de la France. ñoom seen activité yëpp mooy jaay France. Mhm. mooy li la keroog Serigne bi doon wax ci télé bi. waaw naan la rajo Sénégal RTS dafa war di jaay Sénégal ci biti. waaw te loolu dëgg la il a raison. Mhm. donc tubaab yi nag comme xam nañu loolu ñoom. Mhm. dañoo am fulla bu toll di si dox. loolu ñuy dox nag di ko dund ak ñun ca jamonoy colon ba tey. mu agsi nag tey processus bi plus ñuy avancé te c'est irréversible c'est irrévocable mhm. Afrique mu dafa nekk ci ère de changement boo xam ni loolu nga ci dégg noonu les états euh, xawma la la la communauté des états du Sahel mm -hmm. ou l'alliance des états du, du Sahel, Sahel l'alliance Burkina mhm. Mali mhm. Niger ñooñu sawaay dañoo comprendre yàlla nattoo leen ñu dund ci lu metti fippu nag fippu bi ñu fi bi ñu fippu nag du dara lu dul ne dem nañ ba gis ne CEDEAO dafa lëlu ci France yow France <clears throat> daanaka dafay financer CEDEAO France dafa am baat ci CEDEAO bu waxee gars yi appliqué ñi nga xam ne am nañu fula dañuy génn loolu moo dee dëkk mm-hmm. tey Sénégal seddul bu baax seddul bu baax. aw mm-hmm. Sénégal bu CEDEAO cour de justice CEDEAO décidé dara ci Sénégal. Mm-hmm. su arrangé état bi par rapport à n'importe qui ou n'importe quoi. Mm-hmm. état bi day appliqué. waaw su concerner un acteur politique. Mm-hmm. état bi du appliqué te daf kaa def ak xel mu dal. daal di woote souveraineté. waaw ne posons-nous la question pourquoi parce que lu nit ñeme lu ne am na kaka ñemeloo. dañ kaa dee wala am na la ka ñemeloo. Mm-hmm. waaw ki nga xam ne nag moo ngànk ñun am influence ci suñu politique nu mu tudd France la tudd. waaw di conditionner di teg à gauche à droite am na taxawaay boo xam ne bu fekkoon Sénégal libre nañ ci. buñ ci libéroon dëgg nekk ci souveraineté bi ñu foog. bi mhm. ñu yaakaar économiquement politiquement et tout mbiru Ousmane sonk yi du sore xam nga lu tax parce que dafa am kaa xam ne dana ko lijjanti na mu gën a gaawee na mu gën a simple jafe-jafe yi ñuy am ci suñu réforme institutionnelle. Mhm. yi ñuy woote ne présidentialisme fort ak leneen leneen mu jur justice dépendre ci exécutif. Mhm. loolu xam nga du am ci dëkk tubaab yi. déedéet mais day am suñu dëkk yi. parce que tubaab yi loolu di am suñu dëkk yi daf leen arrangé. su ko defee ñoom ñuy mën di ñu conditionné. daal di dooleel nag ki fi toog ki nga xam ne mooy toog nag di doxal naka sudul noonu tubaab yooyu ñoo kaa dooleel ma def trois points de suspension wax la ni la ñooñu nga xam ne ñoo décidé génn CEDEAO maa ngi leen di féliciter humblement <laughs> d'accord Georges est-ce que loolu euh, du ñu ne c'est la fin de la CEDEAO bu fekkee ne tey dañu ne euh, Burkina Mali Niger génn nañ ci tey jii créer seen kuréelu bopp waaw xam nga euh, dafa nekk décision boo xam ne mën nañ ko saluer quelque part parce que bu fekkee ne Euh, ñetti réew yooyu muy Burkina Mali ak Niger dañu xëy fippu ne dañuy génn CEDEAO euh, ça donnera à la CEDEAO de réfléchir maanaam day tax CEDEAO yeewu xam ne que nu ñuy doxalee peut-être am na mbir yoo xam ne. Mhm. jar nañ ko seetaat. loolu moo tax décision bi sur ce côté-là décision bu xaw am importance la. Mhm. parce que ça va réveiller la CEDEAO. CEDEAO boobu nag euh, dafa am loo xam ne c'est quand même regrettable si décision bi li ci regrettable mooy dina am ay conséquences. c'est-à-dire euh, CEDEAO dafa am ñaari mbir dafa am une branche politique ak une branche économique économique voilà branche politique u CEDEAO moo doxul maanaam branche politique bi mooy ñi nga xam ne nu ñuy nu ñu koy doxalee euh, nekkul une CEDEAO des peuples mais une CEDEAO des chefs d'État maanaam dafa mel ni kuréel boo xam ne président de la République yu CEDEAO rek la concerné mais bu problème comme li Pa Assane di wax bu fekkee ne dafa am une situation boo xam ne ça implique directement au niveau politique population yooyu ñoom dañuy noppi je donne toujours le cas comme ni mu ko waxee li xew fii Sénégal en mars depuis euh, deux mille vingt et ba léegi sur le côté politique CEDEAO mosoo dégg ñu yeb yey yàbb si dañuy ñoom parfois dañuy bàyyi situation bi compliquée ba dëkk bi de tàkk ñu door a génnee seen communiqué naan voilà dañ lay teg ay daan wala dañ lay def loola leen def la de comme nu ñu def euh, au Mali mhm. comme nu ñu def au Niger comme nu ñu def euh, en Guinée fii Guinée Guinée nu ñu ko defoon aussi mhm. ak feneen ak feneen ak feneen donc ñoom au lieu ñuy alerte ñuy tirer la sonnette d'alarme à temps ñoom dañuy bàyyi ba affaire bi nëbb ñu door a génn sur ce côté là CEDEAO kenn munu ko kenn mënu ko layal ils ils ont tort sur toute la ligne maintenant te ñoom bu ñu ko defee sax si sur le plan politique bu ñu ko defee chaque fois bu ñu génnee seen communiqué du ñu du ñu nekk si wetu askan wi mais si wetu chef d'état bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la ñu daanal wala moom la ñu coup d'état ñoom rek foofu foofu rek la ñuy far maintenant pour venir maintenant sur l'aspect économique ces décisions boobu naturellement ça va impacter négativement sur les populations mm-hmm. parce que bul xal bul bul fàtte ne que euh, bu CEDEAO ñoom bu ñu génnee CEDEAO ñetti réew yooyu bu ñu génnee CEDEAO CEDEAO dafa am euh, njëriñ si côté économique bi parce que commerçant bi nga xam ne moo nekk Mali wala bu nekk euh, euh, Niger wala bu nekk Burkina mm-hmm. bu naree ñëw Sénégal bu ñu génnee CEDEAO naturellement dina am problème parce que dañ dootu leen considérer comme ñoo xam ne ci espace bi lañ nekk pour bëgg a voyage sax boo moytuwul dañ leen imposer nga wut nga dem wuti visa mu ngi mel ni rek nga ne da ngay xëy tey même boo da ngay dem euh, par exemple Kenya mais dañ lay wut dañ lay wutloo visa parce que bokkoo si bokkuñ si espace CEDEAO donc loolu conséquence la conséquence dina conséquence dina sentir si population bi au niveau aussi de la circulation des bien circulation des bien su ma ko waxee mooy commerçant yi rek ma ma lay cité léegi. Mhm. te bul fàtte ne ñetti réew yooyu kenn si ñoom amul géej gi. Mhm. kenn si ñoom nekkul si géej gi. Mhm. donc euh, loolu dina am impact très très Mali ci ëpp seen ay bagages Sénégal lay transiter voilà donc loolu xam nga moom euh, faw moom mu am problème si ñoom ba pare léegi boo ñëw imagine ñaati burkinabé ñoo nekk fii Sénégal ñaata malien ñoo nekk Sénégal ñaata nigérien ñoo nekk Sénégal bu boobaa nag ay boo moytu sax ñu leen di laaj léegi bu ñu nartee dem si yeneen réew yi nga xam ne ñoo des ci CEDEAO bi nañ leen fay laaj ay ay ay ay truc de séjour Mm-hmm. ay euh, carte ay euh, carte de séjour parce que mm-hmm. nekkatuñu ci espace CEDEAO bi d'accord fu mu nekk nii jusque là jusqu'au moment où je bu la neexoon tey nga xëy dem Mali wala nga dem euh, Niger wala nga dem Burkina kenn du la laaj sa sa sa kayit képp que parce ah, qu'on considère que ñun ñoo bokk communauté bi mm-hmm. mais affaire bi bu bu entrer en vigueur bon xam naa nag comme ñoom ñoom dañu ne sa à effet immédiat maanaam bu ñu ko jëlee démb lay commencer mais dégg naa benn boroom xam-xam nee na mënul gaawee noonu faw mu jël at d'abord pour décision bi mën a appliqué wu comme il le faut mhm. maanaam ñu dem wuti seen carte dante parce que dootuñu am carte d'identité CEDEAO ñu dem wuti seen propre passeport dootuñu am passeport CEDEAO bi ak leneen ak leneen ak leneen li nga xam ne naturellement c'est les populations qui vont en souffrir d'accord n'est-ce pas ah. donc euh, moo tax boo c'est une décision boo xam ne am na fu foo xam ne baax na fa mooy sur lu côté politique ça va réveiller les dirigeants de la CEDEAO mais am na boo xam ne c'est un côté ce sera un peu négatif mooy surtout sur la circulation la libre circulation des personnes et des biens mais Pa Assane est-ce que ñoom euh, euh, muriruñu carrément mbir mi projet bi xam nañu les conséquences est-ce que xamuñu ne war nañ ko mën a dékku war na leen gën a tax ñu góorgóorlu ba nga xamante ne ils vont prospérer sans tenir compte de li nga xamante ne moo di kuréel yooyu. waaw euh, euh, si si si si li li Georges signifie c'est c'est capital c'est important. mooy beneen revers bi en fait. mais xam nga si àdduna àdduna ci boppam dund rek risque la dund. Mhm. c'est-à-dire li li risque bi gën a mag ci àdduna mooy juddu. waaw ba ne cëpp fii daa xam ni lépp dëgg la. Mhm. ngay xam ne nag ah ak si nga nag fenn foo xam ni moom daj dëbb la leneen la bon li Georges wax am na. revers la effectivement ils on muri et réfléchi ils ont ils se sont concertés ils en ont parlé mais ñoom dafa dañu am xam nit lu mu def lu ne am na def loo wala la ka defloo la ma la wax sànq. Mm-hmm. ñooñu dañoo am wéeruwaay jamono bi. dañu am fu ñu sukkandiku dafa am ci lu ñu sukkandiku am lu leen ko may benn la volonté de de de d'aller vers la rupture maanaam dañoo sonn ci ci al toppe gi al toppe gi maanaam toppe doon dunguru doon lagara. nekk sa di daw topp ci ginnaaw waa ji mel ni kunu kunu kunu tayle loolu la ñooñu daan ne c'est fini après quoi euh, conséquences yi c'est quoi mooy li Georges wax mais aujourd'hui su ma dégloo Ibrahima Traoré du Burkina Faso ces mhm. speech yëpp xam ci lan la dem organisons-nous battons-nous soyons d'excellents paysans nanu bay lu ñuy lekk ak lu toppatoo su lu ñuy naan na lépp di jóge fii c'est-à-dire le gars il raisonne comme sa il raisonne comme Thomas Sankara souveraineté maanaam souveraineté te loolu mooy souveraineté sëñ bi mooy Sénégal ñun waratuñoo jëndi ceeb Inde ak Chine ak feneen ak feneen dañu war a lijjanti vallée du fleuve ñuy am suñu ceeb 400 milliards ngay jël def ko ci BRT buy nga xam ni jël ndakaaru daggate ko def ko ay ngunu neexut a dégg mhm. mais loolu mooy dëgg nga jël benn bus xoolal benn bus rapide transit léegi rek ñuy ñëw nee nañ dañuy testé eh yaay bus bi pour tester ko rek angle bu nee mu war faa taxaw yéey yaay angle bu ne ngeen war a téye bloqué embouteillage pour benn bus bu dee ñetti biis ñeent fu ñu jëm ngeen xatal tali bi ne ne léegi boo xefee bus tata du ñu daw ñii du ñu jaar fii yow nga ne dangay ngay defar wàññi embouteillage yokk embouteillage créer embouteillage fu mu amutoon loolu ñàkk xam-xam la a ci nekk na ñàkk xam-xam wa ilaa bu dul ñàkk xam-xam xam nañ ko mais dañuy obligé def li tubaab bi bëgg mooy tubaab bi day ñëw ne la defal fii chantier defal fii chantier chantier ba mu ne la naa la jàppale ci lii ak lii ak lii delluwaat ne la non sama ay borom xam-xam dina ñëw dooleel la bu ay boroom xam-xam ñëwee nga joxaat leen xaalis bi delluwaat leen fay bor léegi nag jëlaat nag ci li ngay liggéey bus bi par exemple war a daw pour rembourser waat loo xam ni mais yow lii yëfi lii dundab lagara la yooyu nag la a Traoré sonn ak Abderrahmane Tiani bu Niger ak ki ñoo wax Assimi Goïta mm-hmm. ils lii mënut a wéy na metti benn yoon. comme alcool ci kaw góom. ñu regle ko dund ko benn at ñaari at jàll dem ci leneen et et y a une chose souvent sax dañuy wax ne euh, nañu takk biir yi léegi léeg mën na metti mën na tar mën na compliqué mais parfois mën na bañ a tar parce que lépp mu ngi dépendre ci l'enthousiasme des populations ak envie bi ñoo am ak engagement bi leen di caractériser de sorte que dañu kaa subir xam nga na mu mel awa awa mm-hmm, mm-hmm. dafa mel ni kër goo xam dañ ne metti na tar na mais nañu nañu nañu góob bu ñu nañu nañu nañu jëmbat bu ñu jëmbatee góob ak la sa des mm-hmm. bu sottee dana neex bu mm-hmm. neexee ñu daal di mën a feetu c'est juste ça ils sont en phase de construction mm-hmm. les les français euh, les anglais les européens la révolution industrielle gannaaw ba ñuy ñëwee Afrique sàcc fi xam-xam ba pare mais laata ñuy appliquer xam-xam ba daj nañu dëgg donc aujourd'hui l'Afrique nag am na l'avantage aujourd'hui de la technologie et la mm. forte technologie moo ne li doon metti ci jamono jamono bi changé na et aujourd'hui les gens l'ont compris mm. internet nag bu dee démb doon tey mm-hmm. billaay tubaab duñ ci xajal mm. te moo ubbi bunt yi voilà xam nga xam nga on va faire euh, comme normalement c'est vrai que Pa a bien fait de le dire de le souligner cest